Toujours dans votre acte du jour de ce mardi 6 février 2024 sur la chaîne des grands événements VIP People TV ginnaaw bi nga xamante décret boobu nga xamante abrogé les collèges collège binga bi nga xamante ni moom lañ doon saytu ci assemblée nationale ginnaaw commission bu ba mu famee saytu nañu nag li 12 h ba 21 h du toll ci ñeent fukki député bokk ci opposition bi daal dinañuy jël parole ku ci nekk yëy yàbbi daak wax ci li mu d'accord ak lu mu d'accordul ku ci nekk lépp luy contestation def na ko ni ko ko yoon maye ni ko règlement intérieur assemblée nationale maye ginnaw loolu nak biñu tollo ci 21 et lañu heures voter li nga xamanteni moy loi bi ki nga xamanteni moy Mamadou Lamine Thiam yor groupe parlementaire liberté démocratique pour le changement bu parti démocratique sénégalais daal proposer ben vote bo xamanteni sans débat la ci biir loolu nak le député opposition bi ñen bañon ne duñu des def vote sans débat dañuy débattre ba nopi ñom ñi gisoon ni que débat amatu fa yoon lu waralon décret boobu daal nañ ko fay wax ku ci nekk wax nga li la neex gis nañu Guy Marius bu mu taxawee foofu yëkkati na fa ay cadres yo xamanteni non la ko ko règlement intérieur maye bu assemblée nationale wax na fa lu ko neex yenen député yi wax na ko gis nañu ay menaces yo xamanteni aussi mi ngi doon jip avant que nga xamanteni vote bi mi ngi tambalé ndax té nañu loi bi kenn du ko fa voter yenen député tamit taxaw ne joxé nañu seen bakkan rapporteur bi delu ci né li ngeen joxé seen bakkan ñi nit jox nañu suñu bakkan le peuple sénégalais dinañ ko voté kon dañuy seetluwaat rek gisaat ni nga li fa amone bi ñi installé li di e législature ginnaw bi nga xamanteni ay fëkk caisse mo fa ay buddi micro ay yéeg ci kaw table ci ay député yo xamanteni ndaw peuple bi lañu ginnaw lool n'ak dañuy gis ñi nga xamanteni moy mooy takk der yi ñoom ñoo mujjoon dugg ci assemblée nationale pour ñu installer li nga xamante ni quatorzième législature bi loolu lañ fa gisaat dembu manam muy le lundi 5 février bi nga xamanteni ñi ngi voter li nga xamanteni moy loi bi nga xamanteni mo wara war li di élection présidentielle ginnaw le président de la république bu mu jëlee décret bi ginnaw lool nak li nga xamanteni moy président assemblée nationale di mam Diop dafa delluwaat fi nga xamanteni manam. xëy na ñaaw na ci gis-gis tey ñu gis ko ci wàllu démocratie lu tollu pencum ndaw réew mi ay député nekk fa ñu jël ay éléments GIGN war leen dugal ci biir image bi di wër àdduna maanaam day gàkkal li nga xamante ni mooy démocratie Sénégal donc foofu la ñu delluwaat mais en tout cas li ñuy wax rek lu nuyoo ca lu feeñ ca sëy ba nuyoo woon na ca ngoro ngorogo ndaxte ba ñuy installé quatorzième législature bi gis nañ fa lii lañ fa gisoon maanaam gisuñu fa woon ñoo xamante ne capable nañu pour représenter askan bi amul woon respect amul démocratie ay yéeg ci table buddi lañ fa fekkoon GIGN ñëw donc suñu gisaatee li du bett ken en tout cas liñ fa mëna jël dal dembu nga xamanteni ci assemblée générale li di élection présidentielle bi nga xamanteni moy sande bu Sénégal waroon am le 25 février février di nañ ko ba le 15 décembre inshallah 2024. batay suñu sukkundiko ci li nga xamanteni ginnaw buñu sukkundiko ci ay waxtu yo xamanteni ay question la yo xamanteni dafa jaar ci ay préalable jëmele ko ci député yi nga xamanteni notamment moy ñu Benno Bokk yaakar ak ñi nga xamanteni ñoy parti démocratique sénégalaise ginnaw biñu acté li nga xamanteni moy report port présidentiel présidentielle 2024 bi qui biir loolu mettre nañu li nga xamante de yi ko ci ensemble texte yi nga xamante amendement bi nga la qui dit di mon report de de dafa 15 décembre 2024 au lieu que de nga date le 25 août 2024 comme ni ko parti démocratique sénégalais daa euh, sàkkoo woon ci proposition de loi bi ñu assemblée nationale mais initialement dañu proposer li nga xamante ni mooy collègue député yi benn prétexte bi nga xamante ni dafa jëm ci changement boo xamante ni lenn moo ko motiver muy li nga xamante ni mooy porteuru amendement boobu jaar ci ay réalités yoo xamante ni dañuy sukkandiku ci réew mi daf koy am lu toll grand magal d'ouba, lu toll nawet bi aussi ci jamono jooju dafay am si ginnaaw loolu nag la prolonger li nga xamante ni mais ginnaaw loolu nag dafa am benn période boo xamante ni nawet bi su ñëwee du doon benn période période boo xamante dafa propice pour ñu mën ci organiser ay élection présidentielle ndax té jàppal nga wara voter ji taw bi soop wala amna ño ñoo xamante ni seen ñuy ay abri provisoire la ndox bi war fa ñëw toyal ay këyit ak ay papier dafay indi ay jafé jafé ci biir lool dal suñu leen fatlikoo vote bi dal giñ ko acté sukkandiku ci li nga xamante ni mooy 104 députés mais nañu jàpp ni que daal am na absence su yoo xamante ni ay parlementaires la ñu bokk ci opposition bi ñoom aussi dañu génnoon biir salle bi ginnaaw bi nga xamante ni lii di gendarmerie ñoom ñoo fa ñëw quelques minutes après bi nga xamante ni am na ay polémique ndaxte jàppale ni que daal gisoon nañ fa daal ay image yoo xamante ni ormaalul benn yoon li nga xamante ni mooy Sénégal ginnaaw ñi nga xamante ni ay députés lañu te nañu sukkandiku ci assemblée nationale maanaam muy parlementaire dafa am ay loi ak ay règlement yu ko tëral maanaam lépp lu fa mënti am rek dañ koy woote kan moo koy yóbbu majorité comme vote la woon je crois que ñep waron mañ na tok suñu leen né loi bi suñu d'accordé ñu voté suñu d'accordul ñu bañ voté ñu xol ñi d'accord voté ñi d'accordul voté ñu xol kan mo am majorité ñi dans di koy yob mais dañuy gis Guy Mari Sagna ak ay ñooñam ñi nga xamanteni ni bok ci député manam opposition bi taxaw ci kanamu caisse bi comme niñ ko défé won bi ñuy installé li di e législature ne duñ fa ndax té vote du fa am lolu aussi bokul ci démocratie ci anarchie le bok donc assemblée nationale su la mayee yenn privilège aussi boule ëppal ba nga ne da ngay jël li nga xamante ni li place moi ñu toog ci seen siège réservé woon vote bi su ñëwee comme nous ñëpp def nañu seen discours ndaxte su ñu nee vote sans débat mënu fa je crois que débat bi ñu fa bëggoon indi si heure vote bi maanaam dafay guddal jël ndaxte lu toll ci midi ba 21h heures lu toll ci juróom-ñaari waxtu amul député bo xamante ni jëloo kàddu wax li la neex ak li la naqari ci loi boobu li leen ko je crois que plus de 40 députés képp kuy sénégalais gis nga leen ñu débattre wax ci

leneen nag loo xamante ni ñu ngi koy ñaawlu aussi takk der yi ñu gis ci biir ñu génnee ay député opposition loolu tamit dañ koy ñaawlu mais dafa mel ni tey ñoom Guy Marius Sagna ak député opposition bi xamoon nañ ko ndaxte balaa ñuy dugal takk der yi ñoom ci seen bopp bi Guy Marius Sagna commencé lan la wax su leen neexee ngeen dem woowi di armée ngeen tek ci biir salle bi mais xam leen ni ko loi bi du ngeen ko voté loolu lañ fa continuer di wax donc ñoom aussi bi ñu taxawee nee nañu woo leen gendarmerie woo leen gendarme yi woo leen gendarme yi donc xamoon nañu loolu donc li ñu bëggoon mooy gendarme yi dugg ci biir assemblée nationale su ko defee image yu wër ñu mën ko jëfandikoo pour yàq deru Sénégal à travers l' international mais nañu xam ne loolu yëpp du deru Sénégal la ñuy yàq ndaxte Sénégal ñun ñëpp ko bokk suñu ñu defaree der bi ñun ñëppay set suñu ñu yàqee der bi ñun ñëppay tilim kon ñoom aussi ay sénégalais la ñu aspiré diriger li nga xamante ni mooy réew mi ñu jël leen ay sénégalais tànn leen ci ay sénégalais teg leen ci seen pencum ndaw réew mi pour ñu toogal leen fa xeexal leen askan bi donc je crois que waruñu xool ay intérêt politique politiciens yoo xamante ni tey dañuy tilimal wala gàkkal deru Sénégal li am solo ba am solo daal mooy lii nga xamante ni ñoom Guy Marius Sagna def nañ ko. kenn rafetlu ko mu ak moom ñoom biram su lay Diop ñoom Abbas Fall yor seen téléphone taxaw ci kanamu kees bi ne kenn du fa amuñu ci droit waxtane ko wut consensus du jàll benen beneen bi décrire aussi moy ñi nga xamanteni moy mooy takk der yi duggu nañ ci assemblée nationale aussi kenn rafetlu ko ndaxte rafetul ci démocratie Sénégal ñi gis ay takk der duggu ci biir assemblée nationale di jël ay député ba nopi di leen génné ndaxte vote bi bu muy am ñoñu di député opposition bi donte d'accord ñu xamnañu suñu toogoon ci salle bi sax duñu ko voter mais dañ leen génné ci biti salle bi donc loolu mën na indi benen polémique bo xamanteni da fay am ci Sénégal li am solo ba am solo moy nañu xam que pencum ndaw réew mi la ñu amul kenn ci ñom ku fa yóbbu sa bopp même suy juróomi nit ci askan bi ñoo la doyloo pour le la foofu le juróomi nit yoy nga xol lan la la charte ak règlement intérieur assemblée nationale may nga jël ko li ci am solo dal moy loi bi mujj nañ ko voter fofu sur 104 voix contre Ben nit bo xamanteni moko voter wul manam loi bi nga xamanteni moy décret bi Macky Sall jël pour annuler li nga xamanteni moy élection présidentielle yi dàqandi nañ ko ba le 15 décembre inshallah fi ci Sénégal mom lañ koy amal en tout cas dembu lañ ko voter fofu ci assemblée nationale.